si ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen di nuyu sunu kilifa diine ak sunu kilifa aada yi. Mm. di ñaanal senegal jàmm. di ñaan réew yàlla sunu borom def fi jàmm di ñaanal sunu kilifa diine ak sunu kilifa aada tey nag ma jàkkaarlook sama pàppa sama xarit wax dëgg yàlla koo xamante ni ba jàppee ba tey bawul. Mm. këram amuñu fi sens interdit. Mm. mu yaatal ñu ak cause de lan samay njaboot ngeen. à cause de lan da ngay ñu bëgg liggéey ak cause de lan da ngay am jom. sàccoo leen defoo leen naka su dul noonu da nga ñu daan seen doole. Hmm. moo tax foofu noonu lay jaar nuyu ko nuyu sunu yaay yi nekk ci kër gi yëpp. Hmm. wax dëgg yàlla keroog korite fii laa ko paree mais gis naa taxawaay bi nga xam ne wax dëgg yàlla taxaw nañ ma ko ak people 221 yëpp mu di jaraaf ah Youssou Ndoye hmm. papa dañ lay bàyyi nga nuyoo ñii di la suivre. asalaamaaleykum mbokki Sénégal. ba fekkee télévision bi romb na frontière bi. maleex gi neex gaa ñu ngi nuyu di ñaan seen jàmm yokku man may président au conseil de la collectivité lébu cent vingt et un villages yi maa ko ilif si kantanu yàlla ñooma fal ba may fal tamit yaakaar si man moo tax ñu fal mais bu ñu àggee si foofu may dégg sax ku wax si ñoom ci seen péncu makaam moomu naa non yaa ngi réglé ci ay problème ci biti kërëb kërëb maa gën a mën a réglé problème bii mais kataa lañ siy def mu saf sap dama gëj a histoire sax ndax dégg nga wax bi ba ma amee nag soixante dix ans bu kër ga ma jubilé ko def ko comme ñoom naka naka doon sax waaye comme national yi ñoo def noo ko jubilé ñu jox la nga football foo foo xisate ñu génne la nga noppal ko tuuti tey xam nga la moo xew bii ñu demee Ngor dañu leen demander pour que ñu arrêté arrêté leen parce que réew mi kenn waru ko yàq waa Ngor ne ñoom xam nañu loolu dañu jëmoon gendarmerie moo leen demandé woon ne comme gendarmerie ba fa nekk matul deux cent mètres carrés dañu bëggoon ñu jox leen euh, cinq cent mètres carrés maire bi tamit ne dafa soxla mais ñu waxtaan rek mais ñoom dañu ne ñoom cinq cent mètres carrés waa mairie bi ne trois cent mètres carrés la am ñu toog ci loolu gendarmerie ci boppam ñu bi ñëwee Ngor demandé leen ñu arrêté histoire bi ñu arrêté ko ñu ne d'accord arrêté nañ ko ñu ne pause leen. mooy pause bi. pose leen ñu dem seeti gendarmerie waxtaan ak ñoom bii ni ñëwee si si si foofu ñuy histoire sax fekk na ñaari gendarme yu taxaw côté gauche mais xam nga ñoom en général bu ay nit ñëwee duñ leen teylu dañuy bëgg a wane non nous sommes les gendarmes du Sénégal mais où sont les mécaniciens du Sénégal na leer où sont les les les les gars la SDE où sont les électriciens fii kii day xëy fii kii xëy fële kii xëy fële ñu dajale programme bi muy mu mu mu jàll muy Sénégal muy Sénégal muy dëgg mm-hmm. waaye danañ ñu considérer mais ñun duñ considérer kenn duñ ko def ñun Sénégal ku nu ko jaay nu jënd ko bon bii nga xamante ne loolu am na man de maa nga woon sa kanam rek xam nga sumay affaire mais bii ma demee ba taxaw laajte waa ji fekk nañ fa beneen chef chef chef gendarmerie bu baax boo fa dëgg ne yàlla ku baax a baax a baax ku sant Gueye ba ñu waxtaanee waxtaan waxtaanu noonu si tooñante ak tëfar tëfar parce que tam négociation lu nekkaan si. Mhm. da ngeen di waxtaan xam ne ay sénégalais ngeen. Mhm. war ñu topp di ñiiroo di ŋaayoo bon mais bu ñu ay chef mu ne te dañu génn mais euh, amul problème dinaa leen ko wax ñun ñu ñibbisee bi ñibbisee ndekete terrain bi nekkul terrain boo xamante ni te nii la woon ci jamonoy Ablaye Wade la ñu wax ma nag leeru ma mais si jamono Ablaye Wade la ñu doon jéem a nax euh, Serigne Cheikh Tidiane si xam nga Serigne Cheikh Tidiane ci kanfoori la. bopp bi bopp bi doo dafa fees del ñu ñëw nekk léegi dañ lay jox terrain bi karab karab kidib kidib karab mu ne déedéet man ma suma demandé fi terrain lii ma bëgg mooy comme waa Ngor ko moom jox leen ko waa Ngor. ñu teg affaire bi terrain bi kenn waxaatu si ah. maire bi boo ko laajoon mu ne terrain bi dama defoon ne ci terrain Senghor mais waaye dëkk bu ngeen dem nag da ngeen fay def ay morcellement wala ngeen def ay ay titre foncier yoo xamante ne teguwul si yoon loolu mooy dëgg senegal liga gars yi nekk ñoo si bayi bon ñu toog bi ma toogee ba booru onze heures midi ñu informé comme comme quoi gendarmerie mu nga doon yóbbu ay bagages d'ailleurs sax xale yi ñu doon génne yi dëkk bi di yaatal géew bi man yaatal géew bi man de nañ yaatal géew bi parce que affaire bi foog ngor laale ak waa ji ñun ñu door a xam sunu njëriñ te yooyu baaxul si dëkk. ne waa ngor waa gendarmerie dañ ne non dañuy wax ba mu yàgg rek ñu ne eh, eh, ne maintenant ñu ngi doon wax ay cinq cent mètres mm. mais on va tout prendre en maintenant ñu bàyyi yooyu man ngaa fekk dëkk bu jàmbur nga jóge par exemple fii si euh, Thiès wala nga jóge Ndangalma wala nga jóge fële sa Goudiri xaw ma nu mu demee nga bëgg ñëw fekk ay nit yu dëkk seen dëkk nga ne ni lu tax waa Touba moom Touba Touba ko jinney Tuubaa jinney dunney waa Tuubaa nga dem Tiwaawan lu tax lu moom ko seeni gi seeni suuf ñoo ko moom na leer du dakaar moo gën a poñsewe wala du dakaar fii la ñuy jaayee poudre map fii la départ loo gis rek usine de dessalement baa ngi ñu defar fii la jëkk am ci Sénégal mais niite nañu niite gars yi ne non du demee noonu ah parce que nit ñi boo ko ne du demee noonu foo pare loo baax nu ngeer ko bii ma déggee ne xale yaa ngi laaj xeex du de ma tëdd fële jàpp sama njàmm di way njóogu faama waaw bii nu toogee ba yàlla def ñu ne yoo fa ngi si biir programme bi ah ma ne cadence bi yokku na te nañ nag xale yoof ñu baax lañ xam nga. xam nga lébu dafay respecté kilifaam li ingrédient bañ si sànni nag xamuñu moo ko taal xamuñu taalu ko en tout cas wax nañ ne daal lu ngeen mënta def rek baax yàlla baax bii waa xam jógee wala ñoom tamit dugg si pecc mi man day jaraaf dama leen daal comme ñun suñuy bokk déggal ñun waaye. ñaa déggaluñu leen déggaluñu nañu ëffal bari na ay borom doom bi tànk yi ma oo ma ne la bul oote waat tooga rek waaye bi mu gosee ba gos kuli xame nax njaag ñu arrangé fekk euh, ñi ñii biñ noppal ko ñoom noppal ko nanu xam nga lu jaaduwul ñu ne gendarmerie dama la intervenir yi wala kat moom mooy xeer affaire am mu utiliser arme yu warul utiliser balaa blanc ba ma ko see déggee moo gën a tax ma négocie ñaanal leen bu ma woo ma ne ko ñaanal xale yi rek boo tiiree balaa blanc mu dal si bëtëb xale doo ko tuur kii dee sax saa saam foofu lay moon yàlla moo ko tudd mm-hmm. waaye nag est-ce que rafet na ni mu demee ku mu demoon sa doom si ñoom ñooñu dina la neex ma loolu man man mu kaa baleeg arrangé mais comme comprendre rek nañ ay fan a ngi kenn yëngatul ku nekkaa ngeen a polo ñii seen i faara ngi métti ñii seen mbagga ñii seen i tànk mole yi sax day métti waxuma gis cuisien ah. mole yi sax mu ngi saf homme de tenue du taaxaan ba ab ab ab civil di koy yeb mm-hmm. ba ko xeex bu mu xeex ak gendarmerie dem naa ba comprendre na si xale yi ragal a tunu taxaw te loolu baaxul ndax dégg nga fi ma jëm ñaanu mu yàlla réew mi tasaaroo am fi mm-hmm. yàlla bu fi am mm-hmm. mais dama wax ne ñoom ñii di chef yi nañu gérer seeni troupe ma ñuy wax ak ñoom dañ leen dañ leen taxawal pour que yéen ngeen di garder réew mi pour que assurance am kenn du na waxtaane si biti daa yëpp bu ñu toogee ba non affaire bi affaire bi sax na sax na sax na ah, na daxaar ñu ne non saxul daxaar affaire bi daal këccëb lay nirool ñu ne kër tim di xeex loolu mooy lan mais foofu da nga jàpp ni dañ leen a jaay doole en fait wala doole lan doon jaay ju te doole dégg naa ku leen wax ngeen ne noo ni nii doole bu dajee doole day métti mat si nii lañ def nul équipe bi dañuy nul xeex dangay da ngay nul leneen da nañu xam lañ moo leen war nañu xam ñaati naat mooy nen par jour punkalam gi ma di nga fekk mu taxaw nga ko mbaj te du la moo tax ma digal gu nii ne leen ne ku la mbaj di dem da nga mbaj mbaj mu foor ba konka mu yóbbaale ba léegi la mbaj lii xew daal warul xew ci Sénégal. d'accord euh, nit ñi nag moom seen xalaat. Mhm. lii am waru am Sonko yàqule na si. dégg na si ay version yu bari. waaw parce que foofu noonu dinaa fa ñëw muy kër Farba Ngom bi nga xam ne si yoon nañ ko lakk ñu bari. Farba Ngom Farba Ngom mën naa Sonko. Farba Ngom ñu bari joxoñ baaraamu tuuma waa kër Ousmane sonkoo ni ñoom ñoo dem euh, yàq kër Farba boobu noonu. waaw noonu laa ko déggee de waaye ba loolu amee tamit nanu jël xam nga léegi wax naa la ne bisaab bu xonq bi ma dellu si dolli si si si way Sonko laa du Sonko waa kër Sonko laa du waa kër Sonko man pour man matu la wax ñoo ngor doon jàppante wakaam dugg na si yoof dugg na si loolu daal leer na si ñëpp mais nañu bàyyi Sonko mu toog reposé wu parce que Sonko temps yi euh, xamoon lu mu waxoon waaye loola sonal naka torop baañ ko reposé wu na pose moom tam tuuti parce que sonn naa léegi lii xew mooy dama ne sonko la ak du sonko man pour man nañu jàpp ne li dem mais am na foo xamante ne boo fa tolloo tamit da nga la ndax histoire bi amoon si mi temps yi passé booy ngor ba ma leen dañ ne ma du noonu doon noonu baa gisee programme bi laa fa nekkoon ñaari waa ñoo fa nekkoon amul problème mais ñooñu sax dañ leen mujj dégager ñu jóge foofu euh, mu am nag loo xamante ne tam euh, parce que Sonko tam na bàyyi aw ay kale fii Farba Ngom Farba Ngom Farba Ngom na bàyyi aw ay gendarmerie nañ bàyyi lu leen neex def